الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي واجعل كلامي راشدا ومرشدا wa fikrati nawwir wa qalbi arshida wal qawla saddit wal fuaada nawwiri yaa munzilan qad juttali bis suwari wa nawwiril janaana saddidil lisaan yaa man lahu dikri wa shukri bi xisaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk Moustapha Lo xëy na ku ñàkk solo lool ku kenn ràññewul ci ñu bare bari bari moo ñëw fas yéene jukki lu waxtaan wu gàtt rek woo xam ne dañ koy def ci li nga xam ne ni génneku nañ ko ci njariñ yi nga xam ne ni ñu ngi koy jàng ci eh, ci xasida yi Sëñ yi nga xam ne ni moom la tarif bàyyi fi waxtaan woo xam ne ni amul am nañ ci yaakaar lool ngir képp koo xam ci nii daje nga ak waxtaan bi ba déglu ba déglu ko rek daje ceeg loo xam ci ni danga ci man danga ci mën a soññ ko ci mbokk mi nga xam te mi ngi jàng xaside xaside wala mbokk mi nga xam te nii amoon na tuuti ak càggante ba dawul jàng xaside yi mu doon ab soññ ci ñoom wala euh, mi ngi doon ci ci ci ci mbokk yi nga xam te ni mbokki murid yi wala képp koo xam te nii xëy na ab jullit nga rek te na bëgg njariñ di séentu njariñ di xeeñ ci njariñ ñu man laa man a jukki ci waxtaan wi loo xam ne da nga da nga ci mën a a jariñu ci ci ci ci sunu wàllu yu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy yàlla sunu borom tawfiixale mooy Sëñ Tuubaa ci li nga xam ne moom la moom la bàyyi fi <coughs> waxtaan wi dañ ci jukki ay bay yu ndaw rek yu gàtt ci li nga xam ne Sëñ Tuubaa feeñal na ko ci biir xasidaam yi xëy na du cegg ne dañoo wër xas xasida yëpp sax di di andi ci ay lam ci lam ci lam ci andi ci ngir ngir soññee ci e, wala di ñaax nit ñi ngir ñu jàng ngir ñu jàng xasida yi waaye xasida gu gàtt rek lañ e, xasida gu gàtt lañ jukki ci ci xasida gu gudd e, ngir man cee ñaax ñi nga xam ci ni xëy na ay mbokk jullit lañ te waxtaan yi mën a am njariñ lool ci ñoom ñu leen di kon tàmbale waxtaan wi ci soññe yi nga xam te ne Sëriñ juñ junj na ko ci lu baree bari ci xasidaam yi jukki bi ñu ci jukki rek ñu ngi ko jukkee ci benn genn génn xasida rek xasida goo xam te ni ñu ngi ko tudde Nuuru Daarayni ñu jukki ci ay bayit yoo xam te ni xëy na sëriñ bi soññe na ci lu baree bare bare bari ci ñu jàng xasida yi waxul xasida gi bayit yi nekk dong waaye geneen xasida gu mën a doon it soññ nañu ñu jàng ko te xam ne njariñul ki koy jàng dong dong dong la te yàlla su borom nanga na ko noppi ndax bu ñu xoolee bala ñoo sori tuuti rek danañ gis ne ci béy du njëkk yi mi ngi ciy wax mi ngi ciy ñaan yàlla di wax ne wajaal kitaabatiya min dal yow mi fawqa salaatin qubilat wa sawmi mi ngi ñaan yàlla su borom ne ko yow su borom yàlla na nga def sama mbind mi li may xam ne ni maa ko bind bàyyi fi di tàmbalee te jii may may may may ñaan may ñaan lii may ñaan lii ma bind bàyyi fi daal yàlla na ko def moo xam ji nii mu am njariñ ba nga xam ji nii day féete kaw julli julli waxuma la julli waaye foo ko salaatin xubilat julli goo xam te ni dañ ko nangu waxuma la julli goo xam te ni dañ ko dañ ko julli dong ngir sa ndigal waaye dañ ko julli ngir nangu ko yàlla na nga xam def mbind mi nga ne maa ngi ko bind bàyyi fi mu mu mu am mu mu mu mu féete ko mu féete ko kaw fawqa la wax fawqa loo xam te ni moo moo moo ko féete kaw waxuma waxul waxul yem na doon tuyaabee kese na doon njariñam kese ba féete kaw julli goo xam te ni dañ ko nangu dañ ko nangu wa saw mi boole ci ak ak koor gu ñu nangu koor gu ñu nangu te ku ne xam ne <clears throat> ne julli gu ñu nangu ak koor gu ñu nangu yiw wa ca nekk kon buy ñaan su mboroom mu def mbindam mi nga xam te ni moom la fi bàyyi mu làmboo njariñ yu féetu kaw julli gu ñu nangu ak koor gu ñu nangu kon euh, te suñ suñ suñ tubaa lépp lu mu ñaan yàlla rek moom ku yàlla nangul la ba noppi euh, kon loolu ab junj la bu baax a baax a baax kon ci njariñ yi nga xam ni xëy na xasida yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci ak sëñ Tuubaa ni mu ci sonne ba ba di ba bay ñaan bay ñaan yàlla li ci ci ci xasida yi bala ñoo sore tuuti ci ci xasida googu yi dañ cee fekk beneen bay doo xam te ni day wax wajaal tawaalifiya misla murshidi wa badani saxiix wa qalbi arshidi wajaal kalaami wajaal tawaalifiya misla murshidi xam nga murshid mooy xam koo xam te ni defa nekk di orienté nit ñi di leen wan yoon wi nga xam ne nii fa la jaar ba àgg ci suñu borom di leen jubal mursid mooy koo xam ne day day day day jubalaate te doon te demee sama classe nga xam ne da ngay a yee nit ñi dafa fekk nga bokk ci ñi nga wax nit ñi lu baax wala di euh, gindi nit ñi te gindi gindi ko waaye suñ tubaa dafa ñaan yàlla li mu taalif bàyyi fi mu doon mursid loo xam ci ni day day day day jubalaate day gindiwaate day day teg nit ñi ci ci ci ci ci ci ci ci ca yoon ca yoon wa wajaal tawaalifiya misla murshidi mu mel ne ab murshid wa badani saxe waqal bi teg ci ñaan goo am solo nga xam ci ni xëy na euh, euh, bu bu bu du doon lam ñaan euh, yàlla def ko ci xasida yi ñaan gam ca toftal toftal rek jar jar jar jar jar na di jàng xasida yi ndax mi ngi ñaan suñu borom ñu def defal ko wér-gi-yaram kuy jàng xaside yi bul jàpp ne li ngay ñaan suñ tubaa ma ma taalifoon xaside yi nga koy ñaanal waaye na jàpp ne bàmmeel ji ci yow mi ngi jàng xaside yi lay lay lay delluwaat te bu yàlla nangoo ñaan googu ci yow du ña du du wàññi dara ci la suñ tubaa mi nga xam ne yàlla nangu nangu nangu nangu nangul na ko ba noppi ba dane saxeex waqal bi arshid yi yàlla na suñu borom yàlla na yàlla na mu ngi defal euh, wér wér gi wér gi yaram te te jubal sama xol ndax nit ki xol bu jub mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp waaw na ko ci beneen bindam ci benn ci téere yi wala xal alqalbu kal maliki fil a'daa yi xol dafa mel ni ab buur ci cër yi maxamaa yemin tamit maa ixtiraa yi saa yu eh, xol jenge rek cër yi cër yi doomu aadama yi jeng da ko yomb lool waaye bu xol jubee rek eh, cër yi jub day day day day day yomb lool kon muy dellu di ñaan di ñaan ci njeexitalu bayit wi yàlla suñu borom defal ko njubug xol njubug xol mooy ëpp mooy mooy ëpp mooy ëpp lool ndax ab xol dafa mel ne ab armée rek Euh, xol ni mel ci cër yi day day mel ne lépp dañoo bokk doon ab armée waaye capitaine bi nga xam ne capitaine bi nga xam ne mooy jiite armée armée bi rek mooy mooy xol waaw kon xol bu jubee rek xol bu leere euh, ñu mën a rafet njort lool ci cër yi nangu euh, sawar ci def lu def def lu baax ak ak ak ak ak ak ak jub bala ngaa sori tuuti ci xaside gi da nga ci gisaat bay di bay di mu ci ñaan Sëriñ Tuubaa ci ñaan ci xaside yi bari na ci lool. ndax boo gisee boo boo da nga gis beneen bayit boo xam ne dinaan wajaal kitaab yi wajaal kitaabati ladayka baaqiyaat wa saalihaatin laa tazaalu naamiyaat yow suñu borom yàlla na nga def sama sama mbind mi nga xam ne nii moom laa bind li ma bind man suñu tubaab yàlla na nga ko def mu doon baaqiyaat xam nga bu ñu jàngee alxuraan jàngkati alxuraan danañ danañ boo xoolee ci suuratul kahfi da nga fa fekk euh, euh, aaya bu ñuy wax almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia waaye wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika thawaaban wa xayrun amalan boo xoolee loolu suñu borom mi ngi ciy nu ànd almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia alal ak alal ak ñooy ñooy taaru taaru dundu add add àdduna bi waaye wal baaqiyaatu saalihaat baaqiyaat mooy li nga xam te ni doomu aadama bi muy dund mi ngi ko fi mi ngi ko mi ngi ko fi def ci jëf ju baax waaye. jëf ju baax jooju mu dund di ko def mu jóge fi jëf ji des fa yool ba di ko fekk fa fam fam fam fam fa mu nekk loolu la ñuy wax albaqiyat waaye albaqiyat saalihaat mooy jëf ju baax ji nga xam te ni jëf ju euh, albaqiyat mooy loo xam te dafay dafay euh, jëf ji xam dafay des waaye as saalihaat mooy loolu nga def mu mu mu fi des doon lu baax loo xam te ni euh, aw yiwu kese la la la la lay jural ñi ñu ñi ko fi bàyyil aw jur aw yiwu kese la la jural yow yow yow mi nga xam te ni yaa ko yaa sos yaa ko yaa ko fi bàyyi. ah Sëñ ñaan yàlla mu def xasidaam yi mu mel ne ay baaqiyaat loo xam ci ni te te loolu ko dañ ko xam ne yàlla yàlla yàlla yàlla na yàlla nangu na ko ndax ku ne ku ne ku ne gis na eh, xasida yi ni ci nit ñi di di sàkkoo eh, tuyaaba di sàkkoo eh, topp yàlla di sàkkoo jaamu yàlla te lépp doon ak ak jaamu yàlla ndax dara weesu ci tagg yàlla wéetal eh, kennal yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon ab yéegukaay ab yoon woo xam ne des des ci jaar ba àgg ba mën ci àgg àgg suñu borom mu yow suñu borom yàlla defal sama xasida yi mu doon al baqiyatu salihat baqiyatu salihat alquran tudd na ko ñaari yoon boo xoolee al maalu wal banuuna zinatul xayaati dunya wal baqiyatu salihat xayrun inda rabbika thawaban wa xayrun amalan boo demee ci suratu taaha yi da nga fa fekk suratul suratu da wa yazidu llahu allazina htadaw wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun maradan waaw kon al baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban lépp jëf joo xam ne dafa dafa dafa dafa doon jëf ju baax ba noppi di fi di fi des moo ëpp tuyaaba ci façon façon façon borom maanaam li nga xam ne nii boo doon sàkku tuyaaba loo yóbbu suñu borom boo fi nekkee di dund. baqeet salixaat dara ëpp ko ci dara ëpp ko ci tool li nga xam nii da fi nekk di ko def mu mu mu lay mu lay jural tuyaaba boo fi jógee mu des fi dala dala dala dala dala jural tuyaaba moo ëpp euh, façon borom euh, aw aw aw yiw te ku ne xam ne ne doomu aadama yi lépp lu baax lu ñuy def lu ñuy jaamoo yàlla aw yiw lañ ci lañ ci lañ ci sàkko kon suñ suñ tubaa ñaan xaside yi mu doon loo xam ci nii day ko day day jural euh, taalibe yi nga xam ci nii ak bépp koo xam ne ni du taalibe du taalibe waaye xeemam nga aw yiw ba ja ba ba di ko jàng wala nga ci sàkku tuyaaba di ci tawasuloo mu doon ay ba ay baaqiyaat salahaat doo bay di woowu boo xoolee da ngay da nga ci da nga cee gis mu toftal ca <coughs> yàlla na nga euh, jaaree ci li ma bind it soppi say seytaane ba du ba du ba du ba du ba du ma jublu waaye bul soppi seytaane kese waaye na nga soppi waale noon noon yi noon yi it nan jublu feneen waaye bu bu bu bu bu bu jublu ci man na nga xam ne kon bul jàpp kon yàlla suñ borom suñu tubaab yàlla su ko musal seytaane ba noppi waaye da ngay jël wax ji jàpp ne ñaan gi yow sa ñaan ñaan la goo goo goo goo jëmale goo jëmale sa bopp goo jëmale sa sa sa bopp waaw <coughs> eh, di ñaan suñu borom kon xasit yi doon. lu koy dàqal seytaane di lu koy dàqal ay noon di lu koy dàqal ak ay jàngoro it ilaa sawaay abadan waddaa waaw ndax Sëriñ Tuubaa xasida yi amul benn boo bayit boo xam ci nii wala benn baat boo xam ci nii dana ko ci indi rek xam ci ni da ci da koy def da koy mottalee ay wala ba euh, wax ji dafa manqué wala wala wala waaye lépp bépp baat boo xam ci ni tànn na ko ba indi ba indi ko ci rek lu am njariñ la ak wala loo xam ci ni euh, lu am am la njariñ la moo tax mu mu mu tànn ko ma ngi ca toftal da ca euh, ne wajlu biha lii abadan xaytu akun bila adan wala jawan kun fayakun wajlub yàlla yàlla na suñu borom yàlla na ma xëccal biha ci xasi li nga ne ni moom la moom la bind mooy kitaabati yi kitaabati yi la la la lay dellu mooy euh, wasrif biha wajlub biha lépp ci lam euh, wajaxal kitaabati kitaabati la day ka baax xeet googu lay dellu kitaabati mooy kon suñu borom yàlla na nga defal li ma li ma bind mu doon loo xam ne ni damay damay damay damay ñoddil waaye lu mu ñaan mu doon ab ñoddi ko ayam kun fayakoon kun fayakoon mooy loo xam te ni lu mu bëgg rek mu yàlla may ko may ko may ko may may may ko may ko noonu kon yàlla na nga def suñu xaside yi xaside yi mu doon euh, euh, mu doon ci man lu may ñoddil kun fayakoon kun fayakoon kun fayakoon fu mu mën fu mu mën a nekk wajlub biha li abadan haythu akun bila azan wala jawan kun fa yakun am fu mu mën fu mu mën a toll rek bépp tollaay bu mën bu a toll fépp fu mu bërëb bu ma euh, bu ma jëlee xasida yi jàng ko na yàlla na yàlla na nga def xasida yi mu doon ab euh, lu ab ñoddikaay euh, kun kun kun kun fa yakun xam ne nit ki lu lu mu bëgg rek yàlla da ko da ko ci jaarale ci xasida yi kon may may ko ko noonu mu ko ko mu ko bëggee ñu ngi continuer ba tey di waxtaan ci njariñ yi nga xam te ne Sëñ Tuubaa ñaan na yàlla xasida yi doon di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko jariñe njariñ yi nga xam ne Sëñ Tuubaa ñaan na yàlla mu dëxañ ko ci biir xasida yi nga xam ne moom mi ko taalif yàlla dana ko dana dana ko dana ko defal jullit ñi nga xam ne ñoo ci ginnaawam ñoo ñoo di ko jàng ndax du ma wax murid yi kese ndax du ceeg ne murid yi kese ñoo ñoo ñoo jàng man gëm naa ne fi ne nii jàng jàngkat yi nga xam ne ñoo dàq jàng ñoo dàq jàng arab ku ci digg arab bu loo loo loo loo loo bañ bañ euh, xay na nit ñi <laughs> xam la xam la ni yéen yi da danga toog bis euh, bërëb nga làqatu ci sam néeg jël xasida xasi xasida jàng jàng jàng ko ngir ngir neexaay yu ñaan ñaan ñaan yi nga xam te ni euh, sëriñ mi ngi koy ñaan mi ngi koy mi ngi koy ñaan yàlla ak teggi nga xam te ni ma ngi ma ngi koy waxaale ma ngi koy ñaan ñaane suñu ak it cofeel gi nga xam te ni am na am na am na am na am na ko ci ci ci ci yonante bi ma ngi ci euh, danañ ci gis beneen bayit boo xam ne dina ne wajaal kitaabati ilayka qaida wajaal xayaati li nabii faida yàlla yaa sunu borom yàlla na nga def sama mbind mi man suñ tubaa mu doon loo xam te ni day wommataate jëme ci yow xam ne day day fekk fu ku ku jëmutoon ci yow wala koo xam ni bi ngi bëgg a ci agsi ci xamul fu nu nu muy jaar bu jàppee ci sama xasida yi mu doon xasida yi doon loo xam ne da ko yommat indi ko indi ko ci indi ko ci yow suñu borom mooy képp koo xam ne dafa bëgg dafa bëgg àgg ci àgg ci yàlla mi ngi ñaan suñu borom kon xasida yi doon loo xam ne ñi koy jàng ca suñ ca suñ ca suñ ca suñ borom di loo am solo tax fi ni xam ne nii xëy na ñu ngi ay julli lañ bépp julli maa ngi ragal yàlla maa ngi rafet njort ne eh, yaa ngi xëy di sabab di wut loo xam ne nii loolu àggale ci suñu borom ci suñu ci la Sëñ mi ngi ñaan yàlla kon xasida yi doon loo xam ne nii day wommataate jëme jëme jëme jëme jëme jëme ci moom Euh, mi ngi jeexale bay duy wajaxal xayaat yi li nabi yi fayda yàlla na nga def sama dund gi mu doon am njëriñ lool ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wajaxal bihi baada salaatin wa salaam alayhi xat yi jaal yéen kulla salaam ah moom du tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko te te julli te julliwu ci moom ak wax ji fu mën a doo gis mukk ci ci mbindum Sëriñ Tuubaa fu mu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa ak nu mu ko mën a tudd nu mu ko mën a tuddee donte da koo tudd ci junj dana dana dana dana dana teg ci moom alayhi salaatu wasalaam kon ma ngi ci euh, tof toftal euh, salaatu wasalaam googu ci yonte bi nga xam ne moom la tudd ci baatu na na nabi yi googu di ñaan suñu borom it euh, mbindam mii di doon loo xam te ni day wuññi ak lëndëm am fépp foo xam te ni lëndëmug réer nekk na fa rek yàlla na xasida yi doon loo xam te ni ab làmp la fay la fay doon ci bërëb ci bërëb ci bërëb boobu di ñaan gu am solo it kon kon ci nga xam ne xay na bépp xol boo xam te nii ak lëndëm dafaa nekk muy borom di jàng xaside yi yàlla na xaside yi doon sabab boo xam te ni day leeral xolob boo xolob xolob ko ko ko ko kooku di kooku di kooku di ko jàng di loo am solo la ma ñu ñaan ñaan ko am solo ndax bari na ñoo xam te nii ndax ab xol bam bu bu bu bu lëndëmee rek te ab xol day lëndëm ab xol day day xumaag euh, kon nit ku nit ki euh, yittewoo na bu xolam la lëndëmee lu ko lu koy lu koy nit wala bu xamaagee lu koy lu ko lu koy xacc te gis ngeen ci euh, xadis yéen doo rek mu yoon xol day day day day day day day day màggat euh, lu koy lu koy lu koy daas fu maa jëlee wax fu maa jëlee wax xaala xiraatu quraan ne euh, ko lu ko lu koy lu koy xacc bu ab ab ab xol xumaagee mu ne jàng jàng alxuraan ah, kon ab xol day xumaag ni muy xumaagee it ne lay doon loo xam te ni day day lëndëm kon bu lëndëmee wala mu xubaab nit ki itte woon na kon jàng alxuraan ak jàng lu demee ne xasida suñu tubaab yi xam ne nii sala euh, yonent bi salaa salaam rek la ci ak suñu borom. boo xoolee euh, ci biir mbind mi mi ci ñaan ci bi bayit boo xam te ni boobu kitaabati yi wa bi kitaabati ya saxir li jamia man lam yuhibbuni fa innaka samia moom lu jëm ci wàllu <laughs> noonu yi noon noonu yi la wa bi kitaabati ya yow suñu yow sumbo borom ci barkeb sama mbind xir yàlla nag ma tàggatal lii ñeel ma jamia man lam yo lam yoxibbu nii mboolem ñi nga xam te nii soppu soppuñ ma waaw yow yàlla suñu borom na nga def ci ci xaside yi nga xam te ni maa ngi koy taalif ci sama mbind mi yi nga xam te ni maa ngi koy taalif nga tàggatal ma ci ñi nga xam te ni yàlla yow yàlla suñu borom nattoo nga leen sama xol euh, seeni xol ju ju jubuñ ma te loolu boo ko xoolee boo ko jàngatee da nga ciy gis yërmande gu bare bare bare bare ndax koo xam te ni xooli nit ñi ñàkk la jubul lor lor lor la ci seen ci seen ci seen borom nga ñaan yàlla su borom tàggatal leen tàggatal la xol xol yooyu ba ba ba lor du ak du àgg ci ñoom loolu moom yërmande yërmande kese kese la kon sum yàlla mi ngi jàng euh, euh, mi ngi yàlla mi ngi euh, su suñ tubaab mi ngi ñaan yàlla mu ci xasida yi mu tàggatal ko xol yi nga xam ne nii soppun ko yàlla yàlla yàlla yàlla soppal xol yëpp suñ tubaab lañuy lañuy la ñuy ñaan waaye <laughs> xol yi nga xam ne nii soppuñ ko nattu la te nattu boobu nag euh, ñu ngi ñaan suñu kon mu teg ko ci ci ñi ko ñi ko ñi ko yàlla nattoo ñëpp. ci beneen bayit mi ngi ci naan wa jaal kitaabati ila ilallaahi ahab min kulli xatin wa ilal maahi ahab wa yàlla na nga def kitaabati sama mbind mi man Sëñ Tuubaa ilallaahi ahad mu gën a mu muy li liñ gën a liñ la suñu borom gën a bëgg min kulli xatin ci ci meneen meneen mbind waaw mën nga ko tuddi ci meneen meneen mbind mépp mbind moo xam te nii ab jàmmkate yàlla mi ngi koy bind wala wala yàlla mi ngi koy ku baax mi ngi koy di ci tagg yonent wala di ci tagg suñu borom wala eh, di ci di ci di ci ñaan yàlla yàlla yow yàlla na nga def sama mbind man suñu suñu tubaab gën a bëgg min gën a mbind min gën a sopp ci li ñuy bind jëm jëm jëm jëm jëm ci yow waaw waaye yëmul foofu nag ñaanul yàlla mu gën a sopp mbindum mbindum suñu Tuubaa donc waaye day ñaan yàlla euh, bu ko bu bu gënee sopp mbindum suñu Tuubaa ba noppi mu def yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gën a sopp mbindum suñu Tuubaa ci mbindum ci mbindum ci mbindum keneen ah, <laughs> kon xasida yi <laughs> euh, loolu boo xoolee ñaan gu am am solo la te it ab soññi la lool lool lool ci ci ci euh, njëriñ yi nga xam te ne kon xasida yi làq na ko wala xasida yi dañ ci dañ ci dañ ci dañ dañ dañ dañ ci ne ko waaw euh, boo xoolee kon euh, loolu lépp ay ñaan yu am solo la wala ab junj la bu am solo lool yu am solo lool ci ab soññee bu jëmee ci fonk xasida yi te xam ne kon aw yiw la la ci jublu amal nit ñi. aw yiw la ci la ci la ci jublu waaye junj na ci it ne bind ko rek ngir digg arab wala bind ko rek ngir euh, am amoon amoon amoon amoon jotu jotu jotu jotu bind waaye aw aw yiw la lamb la lamb la lamb la lamboo fees ko fees ko del fees ko del bala nga sore ci waxtaan woowu da nga gis beneen bayit woo xam ci nii ma ngi ci naan wajaal kitaabatiya lil jinaani muusilatan muniratan janaani yow suñu borom yàlla na nga def sama mbind mi ba li feeg ñuy dem àjjana yàlla na nga def sama mbind mi mu doon loo xam ci nii muusi la dan lay doon xam ne day doon loo xam ci ni day àggalewaate ki ci ki ci jàpp da koy xasida yi xasida yi da leen da koy da koy àggale ci ci yow waaye mu doon loo xam ci ni day àggale ki koy jàng wala ki ki ko bëgg dong ci yow ndax xasida yi jàpp ci xëy na jàng ko am na solo lool waaye am na ñoo xam ne ni yàlla dogal na seen i xol bëgg ko lool te xëy na ko mënuñ koo jàng loolu danañ ci ñëw ci e, am solo la bari na ñoo xam ne nii xëy na jàpp nañ ne jàng xasida dong mooy mooy mooy mooy mooy mooy la am solo waaye xasida yi am solo gi weesu weesu na am di di di di ko di ko di ko di ko jàng kese ku yàlla nattoo ba nga xam ne nii féro eji wala mënoo liir wala. E, am nga natt boo xam nii mën a mën a mën a mën a ko jàng am na yeneen moyen yoo xam nii Sëriñ Tuubaa mi ngi koy ñaan ci biir xasida yi loolu moom danañ ci jukki ay ay jukki yoo xam ne nii bu ñu demee ba ci njeexitalu jaale watul maraaxib danañ danañ danañ danañ ko ci gis